dama mer. xam ngeen ne lii du yoon. lii lii jakartaay yi laay njëkke da ngay ñëw tal lal sam jaay ñu jël jakartaay yi gaare ko ci sa buntu place ba client bu bëgg a jënd du am fu mu jaar ba jënd benn ponkal yi xam ne dañuy sañse ba jekk ñëw ci stade bi sàcc nañ ba sàcc gi te bu ñu ñëwee stade nañ def lu mat ci seen poos yi te bay ñëw meer jox naa la nangam te joxuñu la di sàcc nañ bàyyi lool ci la bokk xale yu góor yi bu ngeen sañseetee def lu mat ci seen poos yi te ba sàcc yi dégg nga lamp yi laa bëgg a wax bala ñoo jàll seen bagage ñu fay lamp yi ba dem seen yoon loolu du yoon lool du yoon bala ñoo laali suñ jaay mi ñu fay lamp yi ba dem seen yoon buñ bëggee laale duñ duñ duñ am fun jaar ba laale duñ xam ne ñuy laalee loolu dong laa ci doon wax nag ñett yooyu moo ci doon sama sox jakartaa yi nañ koy organiser dañuy lal suñ taabal yi duñ am fun jaar jaan ñu jaw ci suñu taati taabal yi gis nga ko ni duma la ko wax ja kii seen jakataay ba bu nit ñi bëggee jàll duñu am fu jaar jàll pour ñëw jënd dégg nga xale yi góor yi nañ ba sàcc gi nañu bàyyi bu ñu ñëw estaat sañse ba jekk ñëw di sàcc nañ ko ba poos yi bu di ñëwatee stade te bàyyi sàcc waaw kay loolu laa sama yaay boobu nag li mu wax leen nee na xale yu góor yi sañte ba jekk di ñëw di sàcc nee na xale yu góor yi bàyyi leen sàcc eh bàyyi leen sàcc ci nawetaan ci nawetaan ne ndax sama yaay yi tey dañoo ñëw teg seen place di daan doole comme ni ko dee mais à loolu yaakaar naa incha allah ci kàttanu yàlla yow maanaam njaay yaa ngi ciy bopp maa ngi ciy gis bopp moom ndax maa ngi sant yàlla wax dëgg yàlla ñu ngi ciy gis yéen ñiy liggéey ak ñun ñuy liggéey ñëpp yal nañu yàlla boole jàmm ñu bokk ci kàttanu yàlla ñu fekkee ko ay déwéni déwén ci barke Seydina Mouhamed da nga wax xale góor yi nag sàcc gi nañ koy ba